ñu proposé ko sama profil mu tiit ni eh, kii kan la yow affaire yooyu noonu sama photographe bi ne ma diw moo ngi laajte sa numéro ma ne ko ah ñu rek lu may doyee ma ne jëlal rek pour shooting la affaire. fuyaale fuyaale ah lu may doyee fuyaale. <laughs> d'accord y a pas jox ko mu jox ma mu message ma barki alxuraan message na ma de temps ma koy soog a te gis naa message. Ah, yaa ko tey yow message bi da koo tiim di kontaan. wéroo. <laughs> ça va rek ça va ma tontu ko après ñu waxtaan jour mu def ma bëgg gis mais xam nga ban heure damay bëgg gis 3 heures du matin ma du ma génn heure bi ay 3 heures minuit une heure mm-hmm. donc heure boobu dafay guddi mm-hmm. benn jour nak ma jógee studio ma guddee woon waroon nippi tombek sama studio mo ngi nekk moom këram fi mu dëkkoon mu message moom ma ne ko man tam ma nekk di génn di jël taxi mu ne ma non bu jël taxi bàyyi ma jël si yàlla ko jëloon ko ne maa ngi gis bëreetam ñi jóg di la jëlee allahu akbar. bilaay ñëw jóg jël si ma après mu ne ma nañ dem doxantu tuuti ma ne ma woo sama yaay parce que insi bi guddi na ma woo sama yaay ne ko man bi leen dañoo nekk ñoo ngi dem maa ngi ñëw mhm. protéger ma sama vas y ñibbisi ma ne ko d'accord ma woo loli jabaru sama producteur ne ko protéger ma ñibbiwuma sama kër damay dem doxantu ji ak Baba Ndiaye bu best pour best bu ma woowee rek nga jéem a protéger parce que man dañ ma doon contrôler comme c'est pas possible. Mm-hmm. après ñu dem doxantu ñu toog waxtaan et tout. mais mm-hmm. ba. billaahi wallaahi watallaahi ba kenn waxul. lum la lum la. kenn waxul sa morom nañ génn ba tey ñoo ngi génn ñun ñoo ngi génn de génn nañ ñun ay at ba tey kenn waxul sama morom nañ génn. non premier toog bi noonu lan la la wax. genre. Ah, mm-hmm. comme des adultes affaire non, noonu ci vie yaa ngi moom dafa ay mm-hmm. trois heures de temps di la wax ci rek rek après et tout. ma waxee mom, moom des ñu waxtaanee ba affaire yooyu def tour voiture et tout. bima ñibé sama kër après man dama off xam nga rek yëfu jigen man dama ko off suma wowe duma jël suma message duma jël ben jour tombeek mu nek guiné mu woo ma téléphone né ma may dem voyage bëgg la gis ma ngi lay wo jëloma lan mo xew mané ko mais man duma sa copine après yooyu nag mu né ma mom mo def ci kané né mom lutax tax ko man duma sa copine. yoy da koy yoy da koy def mom ak yenen mu né ma uma suka pini tu mene manusia tem, shutem ida mau begine ka itu am na am ku commenté nee na loolu waxu rappeur la <laughs> man commentaire yi mun nañ ma rendi ba ma dee barki sëriñ ñoom pour man ay ay ay ay duma sa copine yow xam nga ne soo ko ne duma sa copine mun la gaay nekk sama copine kaa ñu dawal sincérité duma sa copine mais tamit duma duma xool fan laa féetee ndax copine laa duma copine ah waa mais da nga ko wax pour que mu mun la waa léegi yow kaay nekk sama copine. ma wax ne ñoo ngi génn wala génn ñu man foofu wax. ah ah voilà maa ngi soog a comprendre fatal bu ñu fonto eh. laay waxee génn nañ génn bu neex toj nañ dëkk bi ah. toj dëkk bi. ngeen ko tojee fatal euh, man je suis trop trop trop trop trop. dama ay ay mm. est ce que xam nga man sa relation yéen ñaar fan laa ko xamee. Hmm. bi ngeen demee île du du Saloum. dinaa sëkkat. yow satan moo la yónnaa yow Griff Diouf satan balaa yónni ndànk nii. dafa dafa dafa dafa nekk. <laughs> Griff damay jéem a garawaale yow gif photo bu ma gis damay wala vidéo damay jéem a lijjanti nit ki ma ak mm-hmm. man looloo ma sonal léegi dama mm-hmm. gis photo ak moom photo àndoo leen waaye bokk ngeen même endroit bi ngeen nekk bato bi. Eh, voilà dafa dafa dafa dafa am benn jour am benn waay mu ne ma gis nga dafa attention ci même joyeux anniversaire. yow. baax Fatel <laughs> bul tax may def sa interview li nga doon wax lepp da nga ci fo wona fo ba yow sa fo bi nga ci foo dafa leeroon nañ suñ la tuddalee. <laughs> non mais mais mais léegi sama relation ak Ndiaye maturité bu rëy laa ci àndal barki axuraan. Ah, maturité rëy rëy rëy dama doon sóor lu bari. bëri body ça, frère. Non. en tout cas, en tout cas, len amul benn trace. dara. xam naa nit dëgg mooy tax nga xam trace. trace bi. yëgoon naa ko yëgoon naa ko. génn. yëgoon naa ko. maak wala maak El Hadj ngay foog ne ñooy génn parce que El Hadj laay affiché Sori. yëgoon kan naa ko moom. waaw yow xam nga ko yow si kër gi nga bokk ya, normal ya, ya, ya, c'est normal dalu dulu la ya, yow. ya, ya ñu toog jàllaab def jàllaab. mais xam nga ñun dañu doon dem resto. <clears throat> Anu, oh, iya. ah mais c'est normal. ah non mais en tant que ni ñu meloon nii ba nit ñi xamuñu dañoo doon dem resto. non mais c'est c'est normal mais nag est-ce que di ngeen dem amoo bi nekk fii nga xam ne fay ñëw toog. yéen resto. non yenn duñ dem yenn resto yi. ah muy noonu. dem. ah. dañ doon génn dañ doon xàpp de billaay dañ doon dund comme relation. wallaahi yéen ñaar kenn amu ci fulla xam ñàkk fulla ngeen def di ngeen dem fu nekk loolu biir na ma waaye moom sérieusement doo leen dem ci réseau yoo xam ne. di ngeen fekk daan Rama Diop Aminata Ba Fatou Sall ñu toog di waxtaan. ko léegi nag fe feneen fi ma xaw bëgg a dugg dama gis ñu sànq yow ak Maya bi ngeen waxtaan nit ñi di ci bind lu bari bari bari. yaa si seen group bi am ku ci nekkoon koo xam ne ñëpp affiché nañ ko ça l'occasion nag ñu wax ci genre mu jeex ne moom da nga briser xol ba. waaw. daax wallaahi ngi toog maa ngi feebar maa ngi jóge hôpital. mois waxuñu ko un moom fu romb dama fa romb ba ma supprimé numéro bloqué ko.

yëkkaloo yu idi idi léppam militaire ay je t'aime moi aussi tu m'aimes man ko wi jeex na amul dara lu romantique man daal man daal idi comewu ta eh. leen sama xel ma mu ñëw wax ak sama papa sama papa ne ko wool ma Fatima sama papa ne mu bëgg nga ma ne ko waaw bëgg naa mu ne baaba bëgg nga <laughs> loolu rey na ma baaba ne ko bëgg naa mu ne baaba de dama kontaan dama kott sama papa ni ma ko kottee woon jour bobu mo kottoo ba xam ni ne su ma ko teel woon. ah yow wa seytaane waay. kott moo sama papa mo joxe accord. papa. a sama papa nak bu won woon déedéet fal faal. ba baaxul sa papa yo kay baba la ñaan sama xarit bi yo ay. nek fa nak di japp dat nga xam mhm. nga ni si décembre bi lañ naroon ci décembre lañ naroon yow ma ne ko noonu da nga bëri concert affaire man tamit dama bëri affaire bi def et tout nañu bàyyi après après décembre ñu ñu mari yow d' accord noonu de la daal xuloo lañ jóge un mois ñëw seet si ku malaat nga jaarale fa ñaan jabar xam naa je suppose xam naa après après affaire papa bi bi mu passé et tout après nga wax ko nga ni ko c'est vrai ma wax est-ce que c'est vrai est-ce que tu es prêt oh je suis contente ah tu sais dinaa la sëyal bañ du lakk sondalam xam naa ne yooyu ngeen di def yu nee na waane ci néeg bi lañ nekk dafa leer de sax fa ne mu daanaat ma <laughs> yeah, yeah. I think so. Grif? Ja. Xam nga xam nga tey dama am jikko bu daa am jikko tey bu indi boo xam ne gëwuma ci dara man lolo ma yéem moo ma toog di seetaan ndax tey damaa ñëw man affaire ba léegi da mu ngi métti sama bopp sama àdduna ñaan ma yàlla sérieux waaye comme maya Fatna na ma ba dugg sama paxu bakkan bi ba ma sérieux naa continuer nii sérieux waaw mais nag mais nag nag mais nag góor souvent su bëggee noonu la dëgg la su xamee ni su xamee ne mën na su juumee rek mën na mën na mën mën nga ko rëcci noonu noonu lay doxalee chaque jour ah xam soyante woo hmm. hmm. parce que genre maa ñoo ngi doon génn mais maa ngi doon xool nag lekk noo xool ndax naan na këram mayaa duma bàyyi ma fen maay ñëw defar kër gi woo mu set di bale xoolal di bale di manaan la moo tax yow li nga may expliqué ci àdduna yëpp lii mosoo ma ko expliqué mayaa <laughs> mayaa lu ko wax ma expliqué yii man nga xam ne baaba bi man ak moom ñëw ñu ñëwandoo Ouest Foire immigré géej waaye lañ ñëw immigration Ouest Foire nga ne ma baaba de mu ngi jël xale boobu xale bu xonk bi saa yi ma ñëw di defar appartement bi nga wax ma yooyu man ma am leen lu ma wax. gis nga man. xoolal lu ma bëgg lu damay takku ba dëgër. àndaale samay omo samay. neex. defar ba mu set cuuraay te nag loo ci xamul nag sama photo laa teg néegam. lan. sama photo. billaahi laa def ci néegam. Maya yow Maya xamoon nga lii. waaye loolu neexul de parfois damay ñëw fekk photo bi surux ñu eh, surux. photo bi la femme et

Python ak Pylon. je préfère Python. gëm naa ni man tey doo fanaan sa kër tey. doo fanaan sa kër ak lan ak lan. ak lan la. dégguñu dégguñu dégguñu. ne man maa leen dégg. griffe laa wax dégguñu ko. ok. li oh, mais c'est quoi le point lan mooy seen sujet lan ngeen di discuter. waa. ma dañoo bëgg nga wax tey si journée bi. tey doo fanaan ci kër gi hmm? ci damaa def erreur. defoo benn ah, erreur maa ngi maa ngi si jàmm de. léegi yow. ok ak lan. ma ne la nga wax tey bi. <laughs> wax après lan moo des. ndax doo fanaan gi tey. ndax liggéey tey sa journée. muy sama journée on l'a journée bi on l'a passé ensemble man ak yow ñoo dund. waa ñii dañoo bëgg explication nga wax ci bër bu bëri. idi oh idi. ak sa su coupé rek damay dugal. bu leen di ay problème waaye xam nga ñëpp ak may yónnee message naan histoire bër bi lan la histoire bër bi te histoire bër bi histoire kër gi la bu noonu la yem ci kër gi. man maa yow nettali de day wan ku baax dañ koy wane te di toggal di la defalal ay ay neex yooyu noonu danga koy wane fësal ko pour ñeneen ñi jéem cee jàng du dëgg waaw te damaa defar kër gi raxas booli pare idi nee na idi organiser le plat dara togg sur le plat bu ab jom. bu bëri bu bëri bu bëri kii diwlin. non y' a pas diwlin diwlin laa doon moo tax beurre laa ko liiwee. léegi kuddu ni ah. d' je disais que euh, direct bi léegi mu coupé mais bu coupé rek dinaa parce que li ngay wax ni dafa solo. <laughs> <laughs> Ouais. voilà continue. faire ma Je vais ma defar beurre vais faire sur le plat Après, après xam nga génne table J'ai jus un euh, problème voilà. ok ok ok ok non problème quoi. Je suis ah. timide te man ah. célibataire bokul célibataire bi doon man mi midi di lekk tëddaat bokul di ngay tu vas te réveiller tu te réveilles genre suba teel hmm. nga defar hein. nga raxasat assiette même bu nekké sax nga am ba Ndiaye ni ngi ndékki kan Ndiaye <laughs> mo ngi ndékki ba Ndiaye Baba Ndiaye mi ngi wa wa wa ah ba Ndiaye mo ngi ndékki ngay laaj il est pur il est pur du qui fait que yow dina yomb ndax yow sa jëkkër mom gisuma ko gëna immature ci àddina bi et tout ça bañ na ko ba man sama tur sax est-ce que xam ngeen ko et tout ça astuce ak bàjjan ak lu ne laay dégg normalement sen kër xam nga tax warul nakari moom na jël temps rap bi yow nga jël temps son bi comme son bi mu son bi mu woy ak comme son bi mu woy ak Anita yow ngay jël parole Anita bi moom moo jël rap bi le leuse toog di xool kan moo gagné et tout ngeen fa kof di foo di ree et tout ça c'est-à-dire que yooyu dafa neex billahi dafa neex nag sérieusement billahi c'est pas question que genre que dama nekk di live moo tax may wax et mais man su ma génnee dama yàkkamti dugg sama kër certes sax du ma génn mun naa toog ay semaine semaine du ma génn hmm. mais une fois ma génn genre dem def a ñëwaat dama hmm. yàkkamti parce que mut bi fi nekk dafa neex franchement. billaay wallaay c'est non man man man man déjà man déjà damaa xaw a wéet parce que man mood bi nekkoon sama kër et tout ça ak ñoom dof yi et dafa neexoon ci man ba nga xam ni. Je suppose avec toi, c'est encore mieux parce que, euh, en fait, l'homme vit bien vivre. Peut-être les gens qui sont, qui sont, nous vie de star lay dund nous dundul vie de star en fait c'est-à-dire que par exemple wala ay c'est-à-dire que yu ndaw de la vie a neex ngeen di lay taaj di def ne Uhum. Togado, mais do mom. Donc, fake, fake, fake. Yeah, yeah, c'est ça. c'est ça. Ça dit que yéen seen kër këru Baye Fall là, en fait. Mais dans mon absence, je c'est normal. Mu naan ma la goy lay amoureuse. Mais iya. c'est normal. Eh, eh, eh, kii damay timpiram que de eh. qui eh. E. Mais c'est normal. Waa mais on a un bail, way. Non, mon monde est dugg ça. <laughs> Hmm? leeral moom moo ñu dugg si direct bi leeral moom. kan moom waaw doo ñu wayal daal doo ñu wayal. jéggal ma ko rek. man naa lépp bàyyi mu nekk monotone mu mu wéet biir këram nit doo ko bàyyi mu wéet biir këram di nga ko may jàmm. mais da nga koy da nga koy occupé kaf da ngeen di ree da ngeen di fecc da ngeen di bëri ti bi salallaahu alayhi wa sallam da daan da daan da daan dàqante ak soxnaam Aïcha dañ daan dàqante ci biir kër gi. dañ daan di di kaf di c'est-à-dire que bu ko may temps koy def di di kaf di di ree di jël ay c'est-à-dire que tu et quand tu tu n'as pas le temps de faire autre chose mais je te dis hein, astuce je te dis hein, euh, la plupart euh, des mecs sénégalais mm. se dit que ngay ak sa sa ngay def ak sa yenn yenn yi di Dakante yo dañu nan ko yow da nga ñak fayda mm-hmm. alors que c'est pas ça man pour man muy sa jëkkër muy sa jabar boo tàmmeeg mom di fo di fo nga bis bo amé lu la metti da ngay tok régler ne tek mm-hmm. te ko jigéen def tek est-ce comprendre mais boo amee habitude bo amé habitude chaque jour tek ngay def chaque jour tek ngay def bo amé lu la metti du ñu xam metti na la wala metti wala